parce que jigéen moom wax nañ koo ko ku ko jàppale jàppale nga toute xam famille. ku ma xam sama sama délégation bi ñii sama gannaaw xam na ni man dama am penchant ci jigéen moo tax ku ma ci mbiru jigéen rek dama ciy sawar te ah, it sama participation jox donc yëkkati naa 5 millions def ko si seen man mëneewu wax jëf laa gën a mëne damay def action ba pare après ma doog a wax loolu c'est le début du commencement mais am na yeneen yoo xamante ni surprise lay doon dans le cadre nag d'un partenariat durable. donc dañ leen accompagner à travers seen partenariat, yi nga xamante ni ñoom ñoo leen accompagner avec euh, AIBD vraiment dina nouer un partenariat pour vous accompagner par les matériels des équipements. bu boobaa dina gën a renforcer seen euh, association bi nga xamante ni euh, nous sommes la relais président Macky Sall.

Euh, euh, il n'est pas à discuter. C'est un bilan appréciable, visible, mais également bu ñëpp ñi nga xamante ni tey war nañ ci mën nañ ci teg seen bët te loolu nag jàpp naa ne loxo yu ma koy bàyyi mooy une jeunesse consciente une jeunesse sûre une jeunesse boo xamante am nañ ay ambition am nañ vision pour continuité l'émergence du Sénégal l'émergence du Sénégal nag président dénk na ko jël leen ngay jox ko suñu premier ministre Amadou Ba donc nag loolu nag yéen lañ ciy xaar comme li may ma wax sànq balaa nga naan naam ne fa lii ñu leen ñuy defal dañ ñoo dégg te bëgg nañ mu continuer continuer mooy liggéey bi nga xamante ni Sénégal da ko entamé ñu bañ a créer rupture donc il nous faut la continuité des projets de l'émergence et continuer ces projets c'est élire notre candidat Amadou Ba